dal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek kàddu yi nga xamante kii di sëriñ Assane Mbacke daal di nag koy yëkkati ginnaaw bu mu amee ab bàyyi pa nëgandiku bañ na ëllëg la màggal ga moom nag la mu daal di xam ne rek moo di def na juróom benn weer yoo xamante ne rek ci biir kaso bu Jurbel nag la ko daal di passé moom mi nga xamante ne nag moom moo nekk président mouvement bi ñu dëppay appel 221 moom tardewul nag pour yekk responsable Pastef bu tubaab bi Ousmane Sonko nag moom moo nekk seen candidat tey moo nekk seen candidat ëllëg te moom lañ fas yéene di xam ne rek moom Serigne Assane Mbacké moo di jaajëfal bu baax li rek ba noppi rek soog libéré moom nee na ma ngay sant bu baax ma ngay jaajëfal waa Touba wante nag jamono ji di Macky Sall rek lam fas yéene woon nag moo dina nag nekk ñaareel mu nekk ñaareel nit boo xamante xamante ne rek dina ko jéem a faat wala mu seet naneen nu mu ko def ci mbir mu nu mel nag lam daal di fësal rek moo di nag tey la a engagé wu rek pour xeex injustice bi nga xamante rek ba jàmm del si waat waaye di duggaat bu baax ci taarixu réew mi ginnaaw fukki at ak ñaar yi nga xamante ne rek Macky Sall def na ko ci bopp nguur gi moom daf ko jàppee ab dictateur bu mag a mag ak koo xamante ne rek corruption ci lay dox dox ak li nga xamante ne moom mooy injustice bi nga xamante rek mu koy def jëmale ko ci mal wàll euh, gouvernance moom nag la ne lu mu daal di xamle war rek ba ji rek moo di ne bu fekkee ne nag kii di Macky Sall nguuram rek dafa pare rek pour yàq élection yi ñu dën ma ci atum février 2024 bi ñu dët mal na xam ne rek du ci dal ndax kii di Ousmane Sonko nag moom moo nekk candidat am tey moo nekk candidat am ëllëg mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu muy lu la ba tax na nag jamono ji la mu daal di xamlewaat ba tey moom Serigne Assane Mbacké mu ngi ñëwaat bu baax ci injustice bi ak arrestation yi nga xamante ne rek ñu ngi koy def ci wërngal këpp te kenn waralu ko rek lu dul Macky Sall ak nguuram moom nag la mu daal di xam ne rek ci yooyu lee bind nag moo di ne nag la gën a engagé wu rek tey la gën a pare bu ca jugeekoo nag mu ngay jaajëfal sénégalais yëpp rawatina nag dëkk bu mu fekk baax di Touba Mbacké ak ay famem ak responsable Pastef yi nga xamante ne rek jàpp nañ ci rek pour mu génn ci boobu les prison moom ne ne amul seen fay benn yoon mu ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku rek yàlla bàyyi ñu fi ak jàmm la mu daal di xam la waa rek moo di ne nag dina amal ab rendez-vous fii ak ñaari semaine ngir détaillé bu baax conditions yi waral nag ñu daal di koy arrêté ak naka lañ def rek ba daal di koy jox ab libération moom la mu daal di xam ne rek mooy Sénégal ca kaw ca kanam bu ñu xeexee rek dinañ am li ñu bëgg